الإدارة بسم الله opposition ba ngay bëgg a xumb de le populaire ne waa M23 day ah seeti woon na nga parti démocratique sénégalais ak ñañ àndal di seeni allié ah, waaw ñaari délégation yooyee waaw Mamadou Mbodj moo ko jiite kon ak Mamadou Diop Decroix Mamadou Diop Decroix ne xam nga ñun mënoon nañoo taxaw ne M23 gi la suñuy noon la suñuy adversaire lañ parce que ñoom ñoo xeex waaye ñun loolee duñ ko def déedéet parce que nag ñoo waaye daal ni mbir mi di doxee ni lé daa mel ni nag léegi daal dañoo commencé nag di dànd maanaam kon di sori nguuru Macky Sall gi waaw te xam nga ne Macky Sall moomee moom président doon na financé kon M23 ba xaalis boobee juróon na fi kon am coow waaw waaw waaye guddiñ toll nii daa mel ni ñoom Abdourahmane Sow ñi lée ak ñoom Mamadou Mbodj ñee ma waa M23 waaw daa mel dañoo commencé sori nguuru Macky Sall gi dee parce que nag lii wane ne kon seen diggante bi neexatul daal mooy ñoom waa M23 waaw dem nañu kon ci fan yi la ñu génn bay sako assemblée nationale ñu daal di koy tas waaw looloo taxoon nag ba kii di Moustapha Diakhaté daal di leen tontu xamal leen ni kon wa M23 ay politiciens lañ yoo xam ne kon dañuy làqatu waaye léegi nag seen kanam yi feeñ na leer na nañ li leer ba leer la téemoo yéen kaay nee na assemblée nationale googee waaw ngir tas ko ah opposition bi day danañu lancer kon tey jëlee ab pétition tere say ak ñamu àndal di waa ko ger ci le populaire nee nañu assemblée nationale googee ah dafa warul nekk nag maanaam am ëtt woo xam ne am parti politique dafay nekk daal di defande libération yéen kaay ne Abdoulaye Wade ak opposition ba yëpp ñoom it ña ngay organiser nag benn projet bu rëy ngir wane ne ñoom it daal ñu am doole lañu waaw waaw fas yéene jàkkaarloo nguuru Macky Sall mi la ngir mu rek ci élection présidentielle yi di ñëw te élection yooyee waaw muy taw wala muy naaj day am ci 2017 eh député Bouga Seli ak ñama àndal ci tribune yéene kay day nee na ñoo président lañu àndal te danañ ko fala 2017 eh waay Samba waaw waa ASC fii mi ci boppam ne ñoom Bouga Seli moo mais Seydina Fall mooy seen coordonnateur tribune yéene kay ne menace terroriste yi day waaw ak dundu gu ah ma ne na président Macky Sall ci boppam jàkkaarloom ak jihadiste yi ah que du ñu ko nangu laa wax dégg parce que islam ab diineewu jàmm laa jéggalaate El Hassan Sall xamal na Macky Sall président ne ko monsieur le président gis nga xeex yu mel nii kon boo cay dugg daal da nga boole ñëw waaw waaw balaa musiba kumba kon Abdurabas di am kon ca ma journaliste si tribune ba yemu ca nee na ko monsieur le président xanaa xamoo kon am na ci ay nasaraan yoo xam ne kon ay occidentaux ngir teg loxo nag yenn réewu Afrique d'Afrique dañuy ñëw daal réew ma ba pare dem jëli seeni ndox nekkat sapeur pompier ñëw naan dañ koy fay te ñoom ñoo ko daal ngir nag monsieur le président nga bañ ko ndàb bi ci lu ni mel ka a a a a na mu jëlee dogal na dana kattanal kon suñu armée bi lay jox leen ay jumtukaay waaw noo la war a taxawee kattanal kon wàllu njàng njàngale mi di éducation wàllu wér-gu-yaram gi leen di santé waaye tamit dund gi nga xam ni kon moom la dund xeex ak chômage xale yi ngir kaarangewu askan wi nga am ko waaw tax ba président bëgg tere kon islam da daganal Serigne ne waaw parce que tere kon islam ci da daganal ba bëgg daganal kon islam da war yonent bi alayhi la fële day ñoom day tu ñoo gis directeur bi di le quotidien ville de Dakar day mairie ba waaw sur quotidien Khalifa Sall kay ah, ba marché ambulant si provisoire marchand ambulant yi waajal leen seen bopp ko tëj ñeenti milliards la Khalifa Sall ne danañu ko defaraatee nag marché Petersen bee lu doole fukk ak ñeenti ci ay milliards moom waay maa la ko wax ma ne la njëgu pétrole bii nga ak juróom-ñeent ci ay milliards président nee na danañu jël kon lu ci fukk ak juróom ci ay milliards milliards dugal ko ci université yi juróom-ñetti milliards jëwu gi ci kawga waaw réew mi quotidien ne waa RMP ñoom lan la ñuy neub ana sen rapport bi 2014 dañ ko naroon ci wal waaye dañu nilal mbir mi di ana la ñuy neub lañu wax le tay mooy yene kay ne ciowal suuf su graaw am na ca Petersen ma la ko wax mané la tan ña kay fi mu nekk nii ña biiw ak a wër ab immeuble taax bo xamni ëpp na ñaari milliards malheureux waaw té nee nañu bâtiment bo bé gor ga nga xamni moko am tay amna na at ak ñent ñen ñi kay dañ né dafa dof ma la ko wax amna ci ay kilifa bëree bëri ko luy liggéey ca mais mairie ba ak impôt domaine kay boo sàggane danañ leen plainte mardi itali la ilaha illallah enquête yéene kay ne président Yaya Jammeh day waaw amul lu mu bàyyi lal Macky Sall yekk na Macky Sall Abdoulaye lu mel ni ay missile sol soli kon la génne président Yaya Jammeh ne moom du président moo waay Yaya Jammeh ne du président ab xuusma ñàpp France ak Amérique la fi nekkal Abdoulaye Wade moom ñàkk bu yar def arrogant Yaya Jammeh man am الله اكبر لف بلرني اي رفترا واو الدربي لانو كاي اري ليبراسيون ني كاي ني ما غيسليان فاليرا موي كومبليس ما مو غنا دوغال اي دفترا نا باسكو مو موني اي دفترا ميلي دكو دون جيل دي تو واو اي دفترا نا دال دي نكاي ويدي دي خامل نا كارما ني بام دامي تي سي بنغا كي لين نكو فا يوبون جيل اي بيتيلم سانغارا واو تريمينير كاي ني تاي سوس داي ماغا تيربس واو والوم نجوجا تا ميرم اور نا كون مو موكو فا يوب والوم اور واي نديكتي ميرمي كومانسمان با فين نديكتي تاي سوس لا لا لا مانيلو دومو لانسانو كونتاي بريزيدان gi dañ ko caa tudd waaye xale bi nee na tey soosé ci boppam daal lenn la naroon rek bàyyi ba ñu defar kon affaire bi ba lépp normal ca mu daal di may sànni ca biti dem naa ca football ba tribune soox ne éliminatoire coupe du monde ba waaw Madagascar Sénégal Aliou Cissé entraîneur gayndey nee Sénégal ci boppam kon ñoo namm coupe du monde bi le <laughs> ji sama waxu démb sama waxu tey coupe du monde ba dee ku ca bëgg dem ku ne dugal rek football daal dugal boo ko mënul